kon ko jébbal président sa gaay mu ngoog euh, internautes yi dinañ leen di nuyu bu baax a baax sax mi ngi mel ni euh, aji ji fii ñu ngi ko ci seen Binta saar nee na Saa maa ngi lay nuyu Boubacar Sané aussi teewal suñu réew ñoom ñëpp Serigne Saliou Fall aussi ñu ngi koy euh, nuyu bu baax a baax am na ci solo euh, parce que tamit euh, ñoom ñoo tax ñu. toog fi Saliou mi mbaadu bi ma ko teg am na boo xam ne sama sëriñ la de. voilà sama sëriñ jaar moom mooy jàngal mel xam ak xel xam. Mhm. mooy physique chimie. xam nga ci saabu yi dañuy jàngale yooyu. waaw hmm. ah. mi ngoog Basirou Cissé tamit ñu ngi ko fay euh, seen. am na ci solo bu baax a baax. Hmm. voilà Gambien la apparemment. Euh, ñu ngi leen di jaajëfal ci teewlo bi waaye dañuy ñëw rek Saa Wolof ci euh, li ma doon wax muy conclusion yu assise de la justice doon ko jébbal ki nga xam ne moo di le président Bassirou jomay Faye mu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci conseil supérieur de la magistrature. di xamle ne amul obsession ngir euh, daal di fa nekk euh, pour mu des fa mi ngi dépendre ci li nga xamante ne ni euh, mooy nekk li magistrat yi bu ñu ko waxtaanee ba noppi lu ñu ci mën a décider rek bu boobaa moom mën na fa nekk que mën na fa ñàkk a nekk waaye taxul daal mu nekk loo xamante ne ni dafa jàpp ne dafa war a nekk wala mu nekk benn obsession ci moom. waaw loo xam-xam dem ba mu gën laa xam boppam. loolu mm-hmm. moo ci gën a bett nit ñi. Mm-hmm. leen surprendre mooy. Mm-hmm. ñun ñu doon wax ak ñu bëri y compris même président Diomaye wala première ministre Ousmane Sonko ma conseiller la magistrature ak président. mais li ñu gis mooy magistrat yi ci boppam ñoom ñoo gën a xam taxaw ne bu mu ci génn ñoom nag ñoo gën a xam seen mbooti lal. am ñu ne na ci génn aussi. waaw waaw non am ñu ne ñoo moo tax mu ne ñooñu dañoo mérité ñu déglu leen xam lu tax. parce que tamit mbir yow il a faut pas être plus royaliste que la roi du noonu ngeen koy waxee. Mhm. ñoom ñi ko doon xam lan moo ci nekk problème bi nag kaay mu wax la xam nga bu dee. Mhm. nii buñ ko defee ci presse bi xam nga bu njëkk presse bi du woon nii maanaam président bi daf ci tegoon loxo muy du temps de Senghor. Mhm. daan nga bind yenn phrase yi sax wala nga génn feeñtale nangam sax Senghor daf lay convoqué. loolu nag bi ñu ci yeggee tey bi ñu demee ba dindi loolu bàyyi ko mais dañoo gis ay affairiste ay homme d'affaires ñëw ñoo mhm. moom média yi ba mhm. pare di di dicter seeni loi mhm. teg ci mën a def pression bu ñu fayul impôt bu leen neexee mu rees leen du mujj fenn comme yi ñu daan tàmm di gis. mais di ko def moyen de prexion léegi yow même boo ñëwee def lu def lu def ko loolu ci magistrature bi est-ce que ëllëg doo am pire que li nga am ci ci média yi lu mat a xalaat la. kon tey man dama jàpp ne am na ci yoo xam ne boo ko joyantee président di ci teew bokk ci conseil bi. Mhm. mais bañ caa mel nam ci doon mel. Mhm. xam nga tey man dama jàpp ne euh, lenn rek la am xaw ma inamobilité bi ñuy wax nga xam ne nit ki su fekkee ne da nga koo tabb fii deful lu la neex nga mën koo affecte feneen. Mhm. te alors su nekkee ndakaaru gi mën na fi sax nekk suppléant mais li muy fayeeku mooy ëpp avantage ki nekk Kaolack yooyu la ñu war a dindiwaat di xool même bu nit ki bu fekkee fi président di yeewoo lu ko nit ki gën a sori. foofu gën a ëpp sax avantage man pour man bu loolu demee ba am nit ñi danañ toog seen seen seen kii te danañ gis même danañ commencé di gis sax euh, baro yi maanaam cabinet yi fépp mën a am ay baro mhm. comme ni ba baro de doo def baro comme Sénégal da ngay def baro de Dakar Kaolack wala baro de nangam ak nangam bu ko defee fépp dox euh, kii bi daal di kii ak yooyu côté justice bi. Mhm. pour man ay jooyante mën na cee am mais man li ma gëm man pour man. comme mhm. li ëpp ci magistrat yi ñoom ñi fa nekk te waroon a taxaw. ñoom ñoo taxaw wax kon ñoom ñoo ñu gën a xam liñ nekk kon loolu dafa mérité réflexion comme ni mu ko waxee. mbir doo jël benn kii rek comme li Macky Sall doon wax ci séenéeri bi ne lu ma neex laa ciy jël. Mhm. loolu du du taxawaay bu rafet en tout cas gis nañu ku taxaw taxawaayu kilifa li mu wax lu dal xel. beneen bi nag mooy sénégale yi mu waxal man sax dama mel ni prestation de serment. dafa mel ni moom laa dégg tey maanaam bi mu def tey ci tubaab. bële nga xam ne moom la defee woon fële ca jam ñaajo man bi mu xaw a def tey wax wax ji quoi dafa xaw a mel ni man dafa solennel quoi man. wax ji parce que dafa mel ni dafa jàkkaarloog man di wax te xam naa ni mu mel ci man moom la ñëpp mel ah. xam naa fan laa jaar ba yegg si fii. duy pexe. waaw nee na ay pexe tegu ko. waaw non ay pexe mësu koo def sax pour tege fi. xam nga même da ngay ñëwaat ci li mu waxoon mooy bi mu nekkee Paris doon expliquer gars yi mu ne moom campagnal na Ousmane dix ans. Ousmane campagnal ko fukki fan. mu fal maanaam moom bu desoon ci moom moom kii lay goy di campagnal. maanaam pour wax la nit ki maanaam mooy nit koo xam ne fi ko ni ko fi yàlla tege man dama jàpp ne mooy comme li Ousmane waxoon grand théâtre mais fi ñuy waxe mooy joomaay mooy président bi gën ci Sénégal du mm. keneen man dama gëm loolu man dama gëm ne suñ borom maanaam li waa ji doon wax moom bu yàlla doon doon doon doon lekk mm. mu ne ceebu jën lay añe man dama gëm ne Sénégal suñ borom daf ñu defal cadeau bu rëy ci jox ñu ku mel ni président Bassirou mooy nit ku xam boppam mm-hmm. nit ku xam boppam xam li ciy waggam ragal yàlla teg ci loolu mooy li nga xam ne moom moo ñu manqué woon mooy njiit loo xam ne mi ngi fi nekk ba pare ragal yàlla ba pare woyof te looloo ko war. Mhm. xam naa fi ma jaar ba yegg si fii duy pexe te du ay pexe ma fi teg. Mhm. li nga xam ne moom laa mën a def mooy fexe ba soppi li war a soppeeku ngir jub. ngir bu ëllëgee bu keneen di ñëwee it mën a wéyal loolu rek moo fi am solo fii ñuy nekk sax ci kaw suuf ñun dañ fi ñëw pour estage dañ fi ñëw pour liggéey suñu ëllëg mhm. ku bàyyi boppam xel la mais ku bàyyi ku bàyyi suñ borom xel lay mm-hmm. loolu da nga koy gis ci wax ji man wax ji loolu moo ci gën a sedd sama xol. Mm-hmm. en tout cas saa yu président Diomaye génnee. Mm-hmm. li ngay gis mooy nit koo xam ne dafay gën a rassuré waat nit lii rek dafa bokk tey ci binaaw wu sax dañ naan 100 jours yi barki démb la mat mais lii rek ndegam mi ngi nekk ci kii kon moom ba léegi mbir mi. soppiwu ko xam na fi mu jógee. Mhm. voilà ba tey muy euh, xamle ne assises yi nga xam ne amal nañ ko ci côté justice euh, dinañ ko amal aussi ci yeneen secteur est-ce que loolu tamit euh, jàppuñ ne moo mën a nekk solution bi comme ni mu ko bëggee rek réconcilier waat population bi ak justice wax na ko mais réconcilier waat aussi population sénégalaise ci domaine bu mu mën a doon aussi. bien sûr xam nga tey bu dee def nañ ko ba ci problème bi nga xam ne mi ngi xew ci ensemble wala yi demee noonu. ñu xoolaat ko. jooyantiwaat ko. man mhm. jàpp naa ne loolu fi ñu war a jëm loolu war nañ ko def. Mhm. ñu xool ban ensemble lañ war a am dëggantaan. Mhm. parce que nag man pour man xam nga opposition bi tey ñoo gën a am intérêt. man yenn saa yi sax nit ñi dañuy dab dañ lay dab gars yi dañoo yéex lu tee ñu génne dossiers yi nangam ak nangam ma ne leen da ngeen a fal bokkeef gi fi nekk maanaam résime bi fi nekk. da ngeen leen a fal pour mu am rupture. mbir mi du ay noonu. wala nangam ak nangam xam mbir mi la doxal yoon. Mhm. doxal yoon nag da nga war a fexe ba jaar ci yoon parce que boo demee ba indi xët-xët. Mhm. ëllëg nga bëggal koo teg ci yoon mooy boo nee nit ki ak lu mu gën a doon ko reykatu nit wala gën a doon ko bon bu amee vice de procédure fekk mu am avocat yu xarañ bés buñ ko souligner mënoo ci ñoom dara. Mhm. li gën a rafet nag mooy nga bàyyi ba lépp yemb comme nii ñu ko defee. koo woo koo xam ne jàpp nga ne def na ayib ci nekk. kooku boo ko wooyee bu ñu ko àttee moom ci boppam waxuma nit ñi de waxuma nit ñi war a mën a doon ay mbokkam di ko faral wala ñeneen ñi nga xam ne ñooy kii waaye moom ci boppam parce que loolu la àttee di jariñ àttee ki ñuy àtte sax war nañ koo àttee ba pare moom mu xamal boppam ne moom dafa mérité toog kaso mm-hmm. wala dafa mérité fay li mu yàq loolu moo gën a am solo jóg jël aw yat foofu it may wax opposition bi gis nga su fekkee da nga daan yor aw yat di dóoree mm-hmm. ba yàgg raj yat wi rëcc la maanaam fexeel mbir mi tege ci yoon ba bu ëllëgee yet bi bu mu dalaat sa kaw. Mhm. moo tax ñëpp a war a dal mais rawatina ñi nga xam ne ñoo nekkoon fii. Mhm. Euh, dama gis sànq euh, benn waay bu ma wax ma ne ko ki war a noppi bis bu waxee asaka génn démb rek doy na ci sëkk misaal ku toll ni Ismaïla Madior Fall. Mhm. jàngal ñu bari ci wàllu yoon. ak yoonal maanaam pour jox la exemple maanaam ñi war a noppi. que moom ak keneen ak keneen saa yu ñu waxee mbir am léegi nag. comme dañoo toll foo xam ne dañoo dégg yëpp ne tekk gars yi di ko liggéey sans pression wala sans cëfër cëfër wala yàkkamti wala nangam ak nangam ndax yàkkamte gaawtu moom bu juree doom réccu lay doon mhm. yooyu yëpp am ji tax ñoom ñu bëgg a jóg bëgg a dal suñ kaw bopp yi wala yi demee noonu te y a tellement des dossiers yoo xam ne boo ci laaloon ña mu soxal waxuma la nga tudd ko junj ko te duñ nelaw mhm. waxantuma la nag ñuy taxaw mais tax moo tax motu te yëkkati. Mhm. comme ça kenn ku nekk xam sa wàll. ci nag mu mel ni sax euh, ci euh, logique boobu la euh, président ba Bassirou Diomaye fay nekk ba tax mu sàkku ngir ñu amal audit. ci ay bérébu liggéeyukaay yu bari ba ci eh, sàkku na ci IGE mu dem ci lu tolloog 70 ci ay direction ngir eh, def audit ci biir audit yooyu sax tàmbali nañ ko ndax gis nañ ko ca port autonome bu Dakar ak la ñu fa gis yëpp ba ci RTS eh, te ji jàpp nga ne loolu moo war a mun a jiitu kon ci liggéey bi laataa ñuy dem ci beneen étape.